nga ubbi tey yàlla na nu demaat ba toogaat fi ci barkeb Serigne Saliou ba président toog ba doyal ba seet ku ko neex mu jox ko ci barke Serigne Saliou. tey la leer ni day nun jigéen yi Touba yi di saam gama dëkk porte yu xong ya umul xuraa Saliou Jaxate ñëw fa usnul masa Saliou Jaxate ñëw fa jannatu maxwa Saliou Jaxate ñëw fa saxaw ga Sal Jaxate ñëw fa kër gol Sal Jaxate ñëw fa tubaarkalla macha allah xoolal dama nun de fu ci nekk noo nga fa waaye fun saaliw fekkit jox nanu ak milikaar financement li jigéen ñi liggéey leen ak Mohamed Sylla ngi nii toog jërëjëfati Serigne Sall. lii nga xam ne nag moom lañ sumb ngir président Macky Sall ñu ngi ñaan ci barkeb Sëñ Touba président Macky Sall ndax ñun moom la jàppale Samuel Sarr mi xam nañ digganteem ak président Macky Sall mu doon magam te gis nañ yéeneem gis nañ taxawaayam ngir gunge président Macky Sall si liggéey bi nga xam ne sénégalais yi denk nañ ko président rawatina Touba gi nga xam ne moom lañ am Samir Sarr ànd ak magam muy président Macky ngir ñu jëm si lu am solo muy législative yi ñuy ñaan mbokki Touba yëpp ngeen bañ a déglu mboje mbojo yi nga xam ne dañuy fen di wax ngeen jël seen carte électeur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 mooy dafa fekke lu Serigne Saliou waxal président Macky Sall moom mu am devoir même bu du doon xaritam même bu du doon bu du doon nawleem li Serigne Saliou wax ci moom jaral na ko jug kon président Samuel Ahmed Sarr jàppal ne ñun ñii nga yabaloon ci terrain bi am nañu satisfaction ci terrain bi li tax ñu am ci satisfaction mooy may nga ñu ñu am ay possibilité yoo xam ne defal nañ ko sunu benn morom bu dëkk Touba bu xam ne mënu ko parce que lii nga defal jigéen ñi defal ko defal ko quartier yi defal ko sancaan yi ñun am nañ ci satisfaction parce que quartier boo dem yaa ngi leen di fekk ñuy liggéey di ña di di di yaxantu jigéen ñi seen capital yi ñu ci ëppale ay capital soixante quinze mille daan am ñun ñii fu ñu dem danañ fa bàyyi téeméeri junni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 wallaahi day yor nguur gi ba doyal te lii nga def fii Touba ba nga tàmbalee jàppale président Macky Sall ak léegi wër na Sénégal nga def ko jataay bi mayewu ko mais mën naa laa wax ci réew mi fenn fu ne la nga fa defal président ña ko fay militaire mënuñu ko kon président Ahmed Samuel Ahmed Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ne ñun nga ko defal ñaari yoon parce que ñun dañoo bokk ak yow Serigne Saliou waaye ñun dañoo nekk ci keppaaru président Macky Sall boo ñëwee fekk suñu man lu ñu mënul defal lu ñu suñu njiit mënalul kon président gàcce jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di la xamal ne nag ñun ñii engagement bi ñu jël mooy du ñu bàyyi du ñu yox-yoxi du ñu sonn du ñu tay du ñu nelaw lu dul dañoo jël ndam li teg ko ci sa loxo nga teg ko ci loxol président Macky Sall loolu rek moo mën a tax ñu bàyyi du ñu sonn ñu ngi nuyu soxna Adama Kane mi nga xam ne fekk nañ ko fi muy sa wëllëre di sa xarit moom itam mu sonn ci ñun fenn fu ne mu joxoñ ñu ko ngir bëgg ndamal président Macky Sall waaye bëgg sa ndam yow Samuel Ahmed Sarr bis ni ki tey jàppal ne Touba gépp yow la ñuy déglu Touba gépp jàpp nañ ne yaay pion bi nga xam ne yaa mën a tax président Macky Sall am fi li mu bëgg parce que yaa dox doxalin boobu président mësul am ku mel ne ni ngay doxee. ay dëgg la waay parce que li nga defal yëpp. Mhm. boo sañoon làmmiñ du ko tudd. boo sañoon bët du ko gis. Mhm. waaye nag ku def. Mhm. ba def lu say nawle mënul. Ah. ñi ngi koy defal war nañ koo wax. kon président gàcce ngalaama. di la seedeel ne. président Macky Sall bëgg na ci yow. macha allah mbëgg mi moo tax barki démb. mu wax ko Cheikh Mahamadul Muntaxa ca ca ca ca Masalikul Jinaan mbëgg mu toll noonu nag. su ko président bëggee. ba seedeel ko sëñ Muntaxa ñun ñii nga koy defal jaarale ko ci ñun mu jëm ci jigéen ñi Touba yi kon jigéen ñi Touba yi lu ñu leen di ñaan mooy le 31 juillet incha allahu taala bu leen mooyee le président Macky Sall seenu carte parce que président Macky Sall moo gën ci réew mi taalibe Serigne Touba la li mu defal Serigne Touba kenn mosu ko koo defal te jàpp nañu ne jàpp ñu ne ku fi ñëwit da nga ko fan a àgg kon président Samuel Ahmed Sall dara la jàmm fii ni mooy Touba Touba nag président Samuel Sarr filay waaje te li ñu fi gis dal na suñu xel bu ngeen gisee ñu tàmbalee fii njëkka ubbi permanence fii ci Touba dafay wane ni.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 ñu ngi am mbekke bu baax di am contentement ci bis bii nga xam ne président Samuel Ahmed Sarr déplacé wu na ñëw ngir dooleel ñu fii ci Touba jël ay koppar yu bari dugal ko fii ci Touba ngir ñu financé jigéen ñi ñu nekk fi diiran weer ak lu teg di jàppale jigéen ñi ñi nga xam ne ñoo nekk ci sancaan yi ak ci biir dëkk bi bis bii nag bu déplacé woo ñëw fii ci siège bi nga xam ne siège bi ñu ngi ciy dalal ñë képp ku jàppale président Macky Sall ak képp koo xamante bii yaa ngi tënku ci Benno Bokk Yaakaar na nga xam ne kër gi sa kër la Samuel Ahmed Sarr daf ñoo wax ne dëkk boobu di Touba daa am norme yoo xam ne moom lañ fay politiquer ni ngeen di politiquer nag bu wàccoog sartuy dëkk ba kon kooku ab taalibe la ba tax na yéen jigéen ñi dama bëgg ngeen déglu ma bu baax ci li may wax dangeen a ànd ak ku gore ànd ak ab taalibe sëriñ Touba boo xamante bi Serigne Touba rekk a ko ñor lii muy def ci yéen yàgg na koo def day soog ak si ci yéen waaye moom ba mu duggee Touba di taalibe ba tey mi ngi def lu baax. di ñëw ci président de la république. parce que nag moom daa neex a jàppale lool man dama fier ci di ko jàppale ndax liggéeyam mate na ko ab ak taalibeem mate na ko. moom buy ñëw ci dëkk bii damaa bëgg ñëpp xam ne taalibeb Serigne Touba la seet si wut kenn Cheikh Mouhamadul Mountakha lay seet si te mooy Serigne di ganuk Serigne Touba kon bu fi ñëw na ko ñëpp maase di teeru te xam ne ko teeru sëriñ bi nga ko teerule su soxlaa dara ci dëkk bii nañ ko ci jàppale te xam ne jàppale googu sëriñ bee ci jiitu Cheikh Mouhamadul Mountakha mësul denc di ko ñaanal mësul denc di ko jàppale guddeeg bëccëg ci loolu la nekk.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 di coordinateur libéralisme social sénégalais bu président Samuel Ahmed Sarr tey jii sama kilifa ñëw seet si ma ma ànd samay naataango di samay xarit ñu ànd liggéey bi muy ku mel ni Serigne Minkaar ak Mouhamed Silla ak Serigne Xaasim Mbakke bu ma tuddee Samuel Ahmed Sarr nag damay nuyu délégation bi àndal su ma ne délégation bi àndal maa ngi tey nuyu sunu mag sunu jëwrin sunu nijaay sunu lépp muy Serigne Saliou Diakhaté mii toog Serigne Saliou Diakhaté mii lépp luy joxe conseil bu baax ak conseil bu rafet pare na pour di ñu ko jox ngir lu président Macky Sall amee ndam Serigne Saliou Diakhaté mii tàyyiwul guddi tàyyiwul bëccëg. lépp ngir ndamul président Macky Sall mi ngi ñuy conseillé mi ngi ñu koy xalaatal mi ñuy xalaatal ngi ñuy wax ngir lu président amee ndam lu mu xalaat rek mi ngi koy wax. mu ñëw tey ànd ak kilifa Samuel Ahmed Sarr. parti libéral social sénégalais bépp raison bu nekk ci Sénégal ma nga fay def lu raw lii. parti libéralisme social sénégalais bàyyiwul benn gox Sénégal Samuel Ahmed Sarr mii loxoom fépp lay dugg. maa la wax loolu gi ñëpp a fi teew. kër Serigne Moussa Niang ñu ngi fi teew. kër Serigne Bara Dem ñu ngi fi teew. kër Cheikh Saliou Diakhaté ñu ngi fi teew. kër Serigne Matar Diakhaté ñu ngi fi teew. waa Daaru Tansil ñu ngi fi teew. waa Sam ñu ngi fi teew. waa waa waa Daaru Minam 3 ñu ngi fi teew. mbootaay yi ñu fi teew. marché Ocass ñu ngi suñ dëkkandoo yi ñëw ba permanence bi tey ñu ngi fi teew ànd ak Samuel dafa am lu mu yéene ci président Macky Sall Samuel mii du koy naxe ñun ñu ànd ak moom ay at at ñu ànd ak moom ba tey ñu takk ko xam nañ ni kii du koy naxe ñun duñu ànd ak kuy naxe de barkeb Serigne Saliou Mbacké du ñu ànd ak kuy naxe kii di nga xam ni billahi doo ko kii dafa jiite parti dëgg la ànd ak yor partenaire di ko doxal def lu leer naññi ba bii may sori mu bee kuraaru tay kii yéen waa Touba Ndiarème yéen waa Touba Ndiarème li ngeen bu ngeen may gërëm tii la bu ngeen bu ngeen gërëm bu ngeen ma dee gërëm la ma ni waa kër Baye Moustapha Thiaw bokk ci njabootu Serigne Salim Mbacké ñu ngi fi teew kon ñun liggéeyal président am rek moo ñu jor président Macky Sall sagal leen sa biir Ahmed Sarr mi président Macky Sall am ndam dama sagal leen sa biir Ahmed ngir président Macky Sall am ndam fii ci élection dana jërëf luñ mën ak lu ñu mën président Macky Sall boo tëddee na dal billahi daana bari ñu ci daan dugg waaye kii ci dugg bokk nañ ci ñu daan dugg kii ci dugg kii président Macky Sall na saxal dal dama ni ñun ñii nag mo Minicar Mohamed Sylla Serigne Khassim Mbacké liggéey bi président ñu ngi koy continuer di ko def bu baax a baax ngir ndam man ma wax man jëf rek laa man man jëf laa man ak def. mi ngi sant gërëm ñëpp ñu fi teew. nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mboolem ñu fi teew. xam ñu fi ñor mooy Serigne Touba. nee na moom dëkk bi li ko fi gën a ñor mooy Serigne Touba ko njabootam. ak euh, di sant nag ñëpp ñu fi teew. nee na di sant njabootu Cheikh Ibrahima gi ak mboolem ñëpp ñu teew fii. journaliste yi. ak journaliste yi la presse. di nuyu kilifa yi fi teew. di nuyu mboolem kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi teew ànd ak moom bis bi. ak euh, jigéen ñi. nee na jigéen ñi moom amul seen fay mi ngi leen nuyu yéen yëpp. dinañ fi nee na dana fi ñëwaat weneen yoon. dañoo ñëwoon rek jàppale si suñu suñu doom. nee na dafa ñëwoon rek jàppale si doomam. Euh, si ubbite euh, si ubbite permanence. ci ubbite permanence bi.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 parce que lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu namm rek. nee na lépp lu ñu bëgg rek. mooy euh, président Macky Sall am ndam. mooy ndamul président de la république rawatina fii ci Touba. kenn si ñun soxlawul dara. nee na kenn ci ñun soxlawul dara. sëñ Saliou daf ñoo defal ba pare. nee na Serigne Saliou Mbacke suñu yaakaar tey ak ëllëg. defal na ko lépp te defal ñu ko ñun ñiit moo tax ñu koy sant di ko santati. nee na moo tax nag ñuy sant Serigne Saliou te di ko dollee sant bu wér a wér. mais kii defal waa Touba. nee na ki defal waa Touba. te xalif général seere ko. te xalif général seere ko. ah ñun day war nañ see jàpp. di jëfe loolu di ko weesu. di jëfe loolu di ko weesu. parce que suñu engagement si président Macky Sall. ndax suñu engagement ci président Macky Sall. du alal. du alal. du poste. du poste soxlawuñu dara. soxlawuñu dara. mais lu dul. lu dul mu continuer di liggéeyal Serigne Touba. mu continuer di liggéeyal Serigne Touba. ñu ngi leen di sant nag yéen ñëpp. nee na mi ngi sant ñun ñëpp. kenn. ci nekk dinañ fi jëwaat. nee na kenn ku ci nekk dana fi ñëwaat jataay bu yaatu. ñu gën mën a waxtaan ñu gën a mën yaatal bu baax a baax a baax a baax. nee na ñu gën a mën a saafonte. gën a xam tamit seen bëgg-bëgg. nee na di gën a taataan seen bëgg-bëgg ngir mu gën cee mën a taxaw. ñun lu ñuy def. nee na moom li muy def. dañ say jaamu yàlla. nee na jaamu yàlla la ci jublu. parce indi ndox. nee ndox.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 Euh, dinañ fi ñëwaat nag. nee na danañ fi ñëwaat beneen yoon. ñëw bu gaaw la woon. nee na bii nag dafay ñëwoon ñëw bu yaat ñëw bu gàtt rek. waaw ñëw ziare si leen. ñëw ziare si mboolem. taalibe yi. xool tamit seen permanence yi. nee na saytu permanence bi nga xam ne ubbi na ko fii ngir benn Bokk Yaakaar.